alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wassalaam ala afdari xalqillah sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa saxaabati alkiram wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi din uxayikum بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرحب بكم أجمل الترحيب في هذه البقعة المباركة من أرض السنغال madinatu Cambérène almahrusati bi iznillah bismi alxalifat al am Seyd Mouhamad al Mokhtar ibnu Seydina Mandiol ñu ngi leen di nuyu ci mbaaxum yàlla ak màggaayam jëkke ci nuyu bi nag fa tabarakallahu sëñ Mouhamadul Amin ànd ak fa tabarakallahu maam libaas saas maam libaas ànd ak fa tabaarakallahu al imaamul akbar di sëñ Mouhamadul Mokhtar mu sëñ moo maam Baabukar ñoom ñépp ci turu xalif bi ànd ak it Seydina um sama baay raan di bay Seydi Thiaw ñu ànd ak nag njaboot gépp gépp nag njaboot gépp ngi fi loolu nag dafay am lu muy symboliser fii yiw rek moo fi ne lu baax rek moo fi ne yàlla naka yàlla gën a saxal a ah, ñëwit fekk feet kilifa yu baax su sëriñ Maodo Cissé mële toogee fii sëriñ Maodo Cissé bu fi toogee na leen wóor ni këri diine yi toog nañ su ma taxawee fii na leen wóor ni li Sénégal am ci këri diine yépp taxaw nañu fi loolu laa bëgg mu leer ci bopp ñu bari te ci kanam a ah, daañu xam li may wax mooy lan sant nag bu baax nuyu fa tabaarakallaahu kilifa yi fi rot tàmbalee ci imaam libaas di imaam raati bu dëkk bi jaar ci moom di nuyu aima yi ci gox bépp borom bis bi le premier magistrat bu Cambérène di bàyyi dun beng di meeru dëkk bi ànd ak kilifa yi fi ne alaaji Isaa Ñaa alaaji Dudu Aan ka Assane bii nga xamante ni moo jiite délégué de quartier yi ak le comité local bi nga xamante ni ñoo taxawee ñoom ñëpp dajaloo teeru kilifa yu baax yi waaye jàkkaarlook balaa ñuy tàmbale et la communauté da ca jëkk mooy représentant yi toogal xalifa bi ci gox goxaan yi ak boroom dëkk yëpp waaye tëje ci gërëm et la communauté laa yeen nag ñoom ñëpp sant leen gërëm leen ñaan yàlla yàlla na leen yàlla yokk e eh, sante ñi nga xamante ni ginnaaw yàlla jël ca jëkk mooy le groupement central di administration wu diine ji alaaji jaaju jiite ko ànd ci Mbay Faal Daouda Mbay Moustapha Dem ak ñoom fédération des daïra Alaaji Njiin Aada Alaaji Pël ñoom mais Idrissa jàppale leen lool lu mat di wax la na ñooñu nag ñoo constituer le comité d'organisation li fi baax ak li fi taxaw ak lépp ginnaaw yàlla seen xalaat kon yàlla na leen yàlla fay ci biir defe naa imaam libaas gaye nga ne le toog su ma nee imaam libaas gaye damay dellu taarix ñii kat seen maama ba bàyyi lay taxawee day geesu di diw lu jibril waxoon ci nangam daka dale ca tafsir abdou gaye cheikh matar loo maam jibril gaye ba ci oustaz saxir gaye kon bu libaas gaye toogee fële tey sëriñ ablaay daan taxaw yooru yooru jàmmalaay bari na lu mu daan wax ci waxu bàyyi waa ji la daan génne kon moom it li mu ëmb ci comité ou bien la commission scientifique te xale yi liggéey liggéey bu rëy ci xam-xam dañu leen di féliciter jaar ci moom it commission yëpp ci appel bi ñu nuyu leen balaa may ubbi fii yàlla na leen yàlla fay ah dalal suñuy gan ka ci jëkk mooy le sous-préfet et Parcelles Assainies nu ngi koy dalal jaar ci moom moo fi toogal président la république di ko nuyu di ko gërëm di ko sant bu baax a baax moom président Macky Sall fii lañ doon taxaw ni ko jërëjëf ay at liñ ko doon jërëf jëfal yépp moo ko fi def kon bu demee ba ni maa ngi dem war na noo am ngor taxaw fi ñu ko ni woon jërëjëf ñu delloo ko ni ko jërëjëf moom président Macky Sall nu koy sant bu baax a baax ñaareel bi kenn ku am solo mooy Barthélemy Dias sunu dëkk yi Barthélemy de yàggagu fi comme meeru Dakar mais ku taxaw tey gor war nga ni ko jëf fii nuyu kilifa yi nga xamante ni egsi nañu fi moo xam sunuy njaboot lanu muy maire di fi ñëw maam mëgéy di ah njaboot gi bàyyi Seydina Sàmba ñoom te Yoof ah di meeru Kayaar ah di gani dun waaye ci njaboot gi ñu ngi leen di nuyu di leen sant yéen tamit seeni i taxawaay bu ñu xoolee ci wàllu sécurité nos force de défense et de sécurité du leen di gën a sant di leen gën a gërëm mais sant le commissaire Xuma unité 15 ak limu mu yor dal diine talka la tudda tal tal ginnaaw yàlla na xool leen jaam yàlla yi leen wër dépp nangam ba léegi ñu ngi taxaw ginnaaw yàlla di ñu sécuriser kon nu ngi leen di am cant bu rëy rëy amit feet ay gan les ICS ñu nga ne lee toog buñ leen waxee dafa am lu ko waral Euh, madame Sandrine euh, euh, euh Gomes ànd ak Ibrahima gay di waxuma la dunu ganu Seydina waaye mën naa ni Seydina Isa fala jaar jaar Tayba ndaari ba ngaa xam ba muy dem ngaa xam kon ñi war nañoo mën a toog fii nu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax doom ñu ne bitim réew te Layène de la diaspora ñuy am ci ñoom mbégte ci ay taxawaay yu bare bare bare di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral leen téye leen jàppale leen santit sunu boroom ci li mu nu defal noo fi ñëwoon fii ay at yàlla tàlloonu ko kon yàlla nañu yàlla gunge jàkkaarloog nag la presse bi nga xamante ni dans sa diversité ni ma koy waxe média d'état comme média privé presse en ligne presse écrite presse si ñii bu xew-xew bu mel ni ñi seen loxo dugg na ci lool yàlla na leen yàlla jàppale bu baax a téye leen rafetlu nanu seen liggéey non seulement fii maire ci réew mépp yàlla leen yàlla jàppale bu ngeen nu déggee tem la yor mi ngi bëgg yàgg na ku ñëw ba fii war ngaa wax le quoi tem bu mel noonu ñëw walaatin ñëw nag ci waxtu wu mel nii nun masunoo liggéeyal ay waxtu yàlla rek lañuy liggéeyal ndax waxtu yàlla rek fa ne lay ñëw ëllëg ak ginnaaw ëllëg xamuñu ko waaye sañ nañ ni yàlla lu ñëw yàlla nay njariñu doomu aadama yépp safaan baat yàlla nañu ko yàlla dàqal ku ne sañ mais yàlla suturaal nu keroog ba mu ñu defee ay nit lanu nangu suñu nite waaye am suñuy limite bu sooboon yàlla nit ba koy jiite kon day yónni malaaka ya ci kaw te du xool te du xool ci suuf bu yàggee mu àgg suuf nun boo waral lenn ci ay thème ñu ko mais tas ka ñaar ñaar moonu ci amal solo ba ca des réew mee moom ba ca jëkk yàlla xëyul rekk tëb andi risaala déet nit la yàlla bind ba pare gis ci boppam bàkku naan dañuy xool lu ñuy tuddee unité de la race humaine wahdatu al jinsil bashari yàlla ba mu bindee nit dak fa ak na mu ko bindee la xool boppam bakka boppam tabarakallahu ahsanul xaaliq dara newul sama wet keneen man man rekk maa man lii booba diine ñëwagul ba ñu naan diw toogal fee taxawal ngeen xoolee yaa ayuha nnaas inna xalaqnakum min zakarin wa ila axiril aaya nit ñi ñépp nga ca biir dellu si ci gàttal ñëw nun di ay jullit nun moo waral woote bi kon biit bu ñëw ci unité al umma al islamiyya pee doomu aadama yépp la woon noo ko bokk ba mu wàccee diine mu tànn ci lislaam jëlaat joxoñ nu nag nun lislaam lislaam principe général ci lislaam mooy wahdatul muslimin tariixa lu fi ñëw la après bennoog jullit ñi laa wax mooy principe général ci lislaam waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu waskuru ni'matallahi alaykum is kuntum a'daa fa allafa bayna bi ni'matihi iqwaanan ay bi ni'matil islaami iqwaanan diine jii nag kon bu ñu jàkkaarloog yéen ibnu tariixa kii mooy kii kële mooy kee kii déedéet li yàlla wax lañ fi wax inna haasi ummatukum ummatukum jàkkaar lool ma jaar ci ñoom lépp lu Sénégal am ci këri diine yi fa tabaarakallaahu ca mag ña ba fii ñu tollu du ngi ñaan yàlla kilifa ya ku ci lakk lu ci waay yor ak loo yor ci diine ji yàlla na yàlla sàmm nun dey am nañu fierté ci sunu histoire senegaal laa ni di yàlla baaxal kenn mënu cee rocc Sénégal ay mag ñu baax ñoo tëdd ci réew mi xeexal yàlla xeex bu rëy ba mu gënee jafe ñooñu nag ñoo meññ li nekk ci réew mi kon ku ci nekk bu ñuy wax waxdatul muslimin nanu fexe ba dëgg dëgg fii ñu taxaw tey ku nekk ngi ku ne la waay jóge ku ne la waaye nangame waaye bu ñu tas yaakaaru kenn ne ñépp sentir ni ku ci ne yaa nga fara war a nekk kon ñaar ñii lay tàmbalee lële mooy unité de la race humaine mooy ñoo ko bokk yéefara ku dul yéefara ci bokk lii nag ummal islamiya moo ko moom contrat la principe général bi mooy ni ñépp nag ànd ci kaw loolu ñetteel bi tëje ko nag ci Sénégal Sénégal benn ay nit lañu la ëpp ca ñoom ay jullit lañu waaye ñeneen a ngi fet du na ay jullit waaw ñeneen ñu ngi fi du na ay jullit ça veut ni société lañu am boo xamante ni noonu la yàlla tërale suñuy société noonu la yàlla tërale àdduna nee leen yàlla bi nu bind ñun ñëpp amul unanimité fu mu ko amee amu ko yàlla ñi ko weddi dëgg ñoo ëpp mais teewul dafa jël jantam bii nga gëm ko ñi ko weddeeg ñépp boole leen lépp manoo ni ki weddi yàlla doo ko xañ jant bi lañuy jar yéen ñépp te teewul mooy rahmaanu di rahim kon li nu amal solo ay nit lañu d'abord ñenn ci ñun ay julit lañu mais bu nu fàtte ni nag dañoo ne ci réew boo xamante ni jullit ak ku dul jullit ak ku dul nàngam ak kon ñooñu lan moo leen war a boole foofu problème bu dee Sénégal dafa am ci lu ñu toog muy dal loi fondamentale bi nga xamante ni moo boole Sénégal nee nañu nit ñi ñëwaat ci diine bu ngeen ñëwee ci charte réew mi ci constitution bi article premier xool leen la réew mi wax leen diversité bi am ci société mu ne la République du Sénégal est laïque démocratique et sociale elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine de race de sexe de région elle respecte toutes les croyances li mooy Sénégal d'abord ay nit lañu jullit lañu waaye ci biir jullit gi li nu yàlla boole nag ci suñu réew ñun fa tabarakallahu diversité tey moo fi nekk kon li nu mën a boole te dinaa ko répété waxaat que mais c'est la citoyenneté kon xeexu diine xeexu askan xeexu nangamte dina attirer attention autorité yi am na lu commencé am ci réew mi ci waaso aw nit dañuy jote ñoom ñaar waaye léegi bu dëkk jógee song dëkk ci waaso bay reyante alerte jot na masu fee xew la xewoon kireen maa ko wax de entre ñaari communauté ndépp di doomi Sénégal ñu dem ba dëkk di songante ay dëkk ma ne benn baaxu ci ñaareel bi waa tefes gi laa koy wax la ko dare ba keroog ngay dem euh, comment dirais-je buur ba keroog ngay dem ba keroog ngay dem dama bëgg loolu chef coutumier sax ñoo cëpp solo li commencé am ci littoral bi benn baaxu ci bu ñu demee ba doomu Sénégal amul liberté ci biir géej gi Sénégal yëpp bokk nag te démb mag ñi ñoo àndoon sëy naa limaam da daan napp mi ngi ci taarixam di dem Banjul di dem nangam di dem nangam di dem nangam ñu war a mën a toog ay doomu Sénégal bokk tefes bi dem ba ci reyante lu jiit loolu ay chalutier ay bateau ay étranger jël sa richesse beeg yóbbu yéen ngeen di jabantey paax yooyu ak yu ko niru lu mat a teel ter dindi la benn baaxu ci du tabu lu ñuy nëbb ay doomu Sénégal mag ñi démb koo fi dem tey ci kot bi dañoo sëyante woon amante nangam seeni njaboot nekk fi jaadu mukk ñu naan tey anu waa Kayaar anu waa Gëndar Mool anu waa anu waa xale yi anu waa Fass Boy ñu ne ngi xeex fii ci géej goo xamante ni macha allah ca mag ñu njëkk ñi dañoo bokkoon seen lépp kooku ñu ci wax ñu yore coutume bi wa tabaarakallaahu état du Sénégal moom lu jëm ci wàllu nangam duñ parce que loolu leneen la ci sa mission régalienne de l'état mooy mu assurer la protection de Sénégalais kon loolu rek ci gàttal fi la ñu jëm kon bismillahi rahmaani rahim inna machiata allah qad qadat an yakuna albashar mutanawiina fi alwaanihim wa lugaatihim wa jinsiyaatihim wa adyaanihim wa saqafaatihim wa hum fi lmaamurati muntashiruun fi xaaraatin wa aqtaarin muxtalifa lakin allah subhanahu wa taala qad shamilat rahmatuhu alayhim wa hadha tanawu yuctabaru wa isran insaniyan kon lépp ci diversité rek la ko yàlla binde moo nu def ngeen ñëw ñu woote ngeen ñëw fii tey ngeen ñi fi teew ñépp bokku leen kàllaama ñu ngeen di wax bokk leen fi ngeen jóge waaye li leen boole tey jii bu dee jullit mooy laa ilaha illallah la leen boole ci nitet yàllaa leen boole ci loolu dëkkaloo leen réew mu tudd senegal mu am seen réalité interne mooy yi ma doon wax sànq bu ko defee na fi citoyenneté nekk war a mën a téye ñëpp kon foofu rek dañuy fexe di ñaan yàlla ah yàlla na yàlla defal ñépp jàmm ah bàyyi lay almuminuuna kulluhum nag ixwa walaysa fi lislaami adaawa wa bagda waalamu ann diin annasiha walmahaba wa taawun wala tanazawa ila alhuda illa ila alhuda wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yàlla na yàlla indi jàmm ci réew mi yàlla na yàlla suturaal ñépp allahuma salli

yàlla nañu yàlla may ñu fekk déwén ñu may Seydi Mouhamadul Amin tabarakallah masha allah yàlla na ko yàlla gunge moom itam ba mu teer bay sekk baar mu doon naay kiraamaaw sigil na fekke woon limaamoo Seydi jil nagaa ya fekke woon limaamoon yaa wax ju dee ka jëf lu giif marwaanaay wuute wulaay doomi maryaa masoonaay yaa wax nu dégg jëf nu giis marwaana wuute wulaay doomi Maria Masuuda waa Cambérène ab yéen me daa yab di